ñëwee ci bopp réew mi ba 2024 bi mu fi jógee moom moo yoroon presse bu Sénégal di leen dundal ci alalu réew mi jaare ko ci bañ leen a fayloo impôt wala ku ci mënta ñàkk a fay bu ñàkk solo ngay fay nga xam ne su faluwaatoon 2024 continuer comme li mu ko bëggee woon tay pression tax mu dellu gannaaw jàpp nañ ne jàngoro ji feeñ ci presse bi du mas a feeñ dañuy wéy di dunde alalu askan wi rek ndax xel nanguwut kat ab régime daanu mënul sax juróom benn weer entreprise de presse ya nekk ci réew mi yëpp tàmbali am jafe-jafe finance ñii di dàq ay journaliste ñii ay journaliste di tuxu ñii ñi bloqué seen i compte ñii mënatuñoo liggéey ndax problème am impôt boo xam dafa dal seen kaw waaw dëgg su fekkoon si ñàkk bopp lañ doon dundee moom yëf yi du demee nii wala su mënta ñàkk demee nii du gaawee nii matagul sax quatre mois yow nga tàmbalee si biir ay jafe-jafe yoo xam ne kenn xamul lu toll ci wàllu finance nit ñi nag moom diabolisation bi moom tar na lool ci kaw nguur gi pression bi tar na lool ba ci journée sans presse bi ñuy organiser sax jubluwuñ ci lan lu dëppee ko nguur gi rek ba mu wéy di leen defal na ñu fi jiitoon nañ leen daan defal ñàkk fay impôt wala su fay mënta ñàkk nga fay loo xam ne daanaka amul benn njariñ moog loo fayit ñoo bokk yam waaye presse bi moom dañoo war a xam ne ñëpp bokkuñu yam bu ñëpp yamoon am ñu gedd seen cër démb ay politiciens yu sotti lañ ko seqaloon nag ay inspecteur lañ ko seqal li am solo mooy ñu xool euh, niñ ko mën a faye ñu waxtaan ak nguur gi étape par étape faye ko noonu walla ñu négocier ak moom xool leneen yoon ñu ko mën a jaar waaye yoon yi ñu jaar yëpp daaw yoon atte bor moom yoon woo ko mën a àtte te atte ba maalu fay lañ cey santaane atte bor fay rek waaye nit moom doo ko ameel bor bu noppi di ko tegaat pression buy tax du la fayu loolu moom tooñ ci kaw tooñ rek la rawatina ngay sàkk mu baal la loo xam ne sax moom moomu ko alalu aw askan la Ah, li jëkkul jaaduwut kay mooy ubbi ab entreprise ci am réew dajale aw nit par exemple ko waxal ne ko 500000F laa lay fay su weer deewee boo koy fay 450000 nga koy fay 50000F yi ni nga ko gëmloo mooy trésor public la jëm da koy fayale impôt te saabu weer dee nga verse ko ci sa compte ba muy ay at yoo xam ne ko yow ko moom soppi ko ay millions soppi ko ay milliards. ah régime bu bees bii de buñ nooyee rek danañ dellu gannaaw de te da leen waroon a jaral nag donte benn rajo benn télé fii des. te ay mbiram tegee ci aw yoon da leen ko war a jaral waruñoo nangu kenn ku fi ubbi entreprise ak ci lu mën a jëm dajale ay sénégalais di leen liggéeyloo di am loolu leen di dagg di ko verser ci say compte loolu moom waruñ cee privilège sa kenn journaliste ak kuréel journaliste ñoo ci bokk yam am réew lañu woote réew nag ñëpp ñoo ko bokk tey jàpp naa ne journaliste bu ci am fulla it du la tee mën a def sa liggéey say laayef du la ko tee def foo mën a jàllale say information ci foo mën sa bopp it du la ko tee def ndax kenn wut laa mën a tàbbal ci combat boo xam ne yow sa yoon nekku ci patron de presse yi day mel na ñoom dañoo bëgg a sóobuloo journaliste yi ci combat boo xam ne ñoom seen yoon nekku ci dee ñàkk fay impôt am na ñoom ñoo fayut impôt ñoom ñoo am ak problème nguur gi waaw ah, ñoo ko war a fay fayuñ ko journaliste yi moom defuñ dara dañ leen a jëloon di leen liggéeyloo donc ñoom patron de presse yi ñoo am ak problème nguur gi bëgg ci yóbbaale journaliste yi te ñoom loolu waruñ koo nangu parce que ku nekkul ci yoon moom nekkul ci yoon rek te ñàkk fayum impôt mi daa yaatu lool ci biir réew mi teres ba ci gën a siiw rek waaye entreprise yi nga xam ne dawuñ fay impôt wala dawuñ fay lañ a fay kenn xamul luñ toll yaakaar naa coowul boobu ñëpp dégg nañ ko fi jàkki-jàkki bañ ay bagaasam ak njabootam ndaw di génn réew mi fekk 12 milliards lañ koy topp yi mu ameel gàppal ak réew mi loolu jekk na baa mu jaadu xam loolu dafay wane ne kon depuis Macky Sall nekk fi kooku dawul fay am ak ñeneen ñu mel na ñoom ñoo xam ne la ñu war a fay buñ ko fayoon ay milliards la ñu amal njariñ Sénégalais ci yeneen domaine yu mën a dugg yoo xam ne réew mi mënu ko ñàkk rawatina réew mi mel ne Sénégal nga xam ne ay impôt taxe dong lay dundee. ba tey bokk na ci pression yi ñuy teg nguur gi naan système bii ñu jël di fayloo entreprise yi la war a fay dafay daane entreprise yi waaw waaye téeméeri entreprise ci am réew te kenn ci ñoom fayut impôt amuluñ benn njariñ réew ma fukki entreprise yoo xam ne nangu nañoo jaar ci aw yoon amal njariñ réew ma ñoo ko gën téeméeri junni yoon lu dul yoon moom du yoon gannaaw dañ ko gàcc ñi nga xam ne dañoo néew doole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 بقوله